si moom ñu cëpp muy surtout les nervis médiatiques la mm. dugalu gëmloo fenn askan wi wan aw xoolloo aw aw fenn askan bi waxloo aw fenn askan bi ci loolu la ñuy xëy di ci gont moo tax li ñu dal dal nu yaakaar nga ne élection yu leer euh, dinañ ko am 2024 nañ élection yu leer nañ ñi mooy am Sénégal parce que élection yu lëndëm. président de loolu la diggee Genève. non non non du moom. barki dem non non non lii leeral askan wi mooy li ko tax a doon li ko du falu. bis nga depuis 1992 euh, ak léegi. code Kéba Mbaye. Sénégal réglé na la transparence électorale c'est des élections libres démocratiques et transparentes loolu Sénégal réglé na ko muy la code électoral bi ñuy wax code électoral Kéba Mbaye cest dire que yokk gën a yokk lay man mi mënut wàññeeku moo tax de ça n'a aucun sens ñooñu créer fit hmm. mais ça n'a sens naan pour comme lan. Front pour l'inclusivité et la transparence des élections ah mooy na ñëpp bokk parce que gis ne dafa am ñu bëgg a éliminer. xam nga Fatou ñi bokk ci élection code électoral moo ko tudd pour nga bokk ci élection code électoral lam ne ku def lii doo bokk ci élection da ngay fexe mooy loolu. Alec ah, bu ba loolu dal la nag. l'inclusivité ce n'est pas un terme juridique ça n'existe pas dans code électoral cest à Sénégal li mu réglé mooy les élections libres démocratiques et transparentes. xam nga 1988 bi nit ñi di wote booba amul woon carte d' identification de l' électeur l' électeur n' était pas ko laaj carte d' amul encre indélébile amul woon encre bu amee bu la neexee doo ci dugg hmm. parti politique bu ñu les représentants balaa neuf heures ñu génne leen yëpp il y pas de média donc mais bi ñu jógee ci loolu ba xeex ba ba am code électoral transparent en 1992 déjà ab élection yi topp muy 93 moo tax Abdoulaye Wade falu 2000 ab ab Macky Sall falu 2000 xam ne en de vingt cinq ans fal nga ci ñaari président la fal ci ñaari président élec réew moo xam ne élection législative yi mujj. tuuti nga ñàkk opposition moo gañe Ndakaaru lépp. gañe ñetti département ñaari département sur deux ci Thiès. Mm. gañe ñaari département sur deux région de Louga. ne rek xaw a indi cohabitation. Ah, nga toog foofu di wax ay élection transparente loolu ay yàpp sénégalais yi la. mais loolu yéen politique yéen yéen journal da ngeen ciy dimbali trop genre nit yooyu quoi parce que nag saaga Sénégal mooy nga naan woy fii ay élection frauduleuse élection frauduleuse a am daanu. Ablaye Wade du daanu Macky du ñàkk Ndakaaru ñàkk ñàkk ñàkk Thiès ak genn wàll ñàkk ñàkk Njurbel ak genn wàll kooku ay waxu caaxaan la loolu 2009 élection yi fi amoon lan la tout toutes les capitales régionales ont été gagnées par l'opposition 2009 déjà boobu Ablaye Wade moo fi ñëw ñu daane ko kon réew moo xam ne sa à dire en matière de standard de d'élection libre démocratique et transparente Sénégal amul benn réew bu ko jiitu ci kon politiciens yi nañu wuti programme ak i parrainage bàyyi Sénégal yi ñuy foyee alors président Macky Sall léegi mu fegal ci bopp réew mi tey boo doon euh, natt bilan wam lan nga ci gën a jàpp li baax ak li safar waaw li baax bari na ci surtout côté réalisation parce boppam parce que en réalité bari na yu ñu koy <laughs> yoo xam ne moom moo ko choisir bañ cee dugg hmm. moom li mu bëggoon rek ba Abdoulaye Wade réaliser benn mu defu sur ce point précis vraiment yaakaar naa ne am na nag ay réalisation yoo xam ne bët mën na cee tegu baaraam mën na cee tegu réalisation yu bare bare bare ci infrastructure yoo xam ne li lim bu bu Sénégal yi yëpp bu maanaam bu fekkoon ne ñi ko jiitu li mu def ci fukki at yi ñaar defoon nañ ko kon nag ni Sénégal weesu na fi bu yàgg. kon encore surprenant maintenant beneen bi nga xam ne foofu laa jàpp ne foofu la la jee mooy li ñuy wax la bonne gouvernance et loolu c'est un par c'est paradoxal d'abord moom moo ko diggoon Sénégal yi la gouvernance sobre et vertueuse est-ce que def na ko. noonu non sobre sobre sax sobre man gëwuma ko man li ma gëm mooy vertueuse parce que sobre moom beneen appel un état n'est jamais sobre. Ah, loolu la ah, waxoon de ah, ma ko wax non non dama ñëw ci vertueuse parce que moo ëpp solo bi mu faloo dikk ko Sénégal ne bu ma faloo la gouvernance sera vertueuse parce que daa am lu ko jiitu. Hmm. yàq gi waa si doon yàq. Sénégalais yi di ko kaas assise nationale ñëpp di ci wax mu ne su ma faloo si instauré une gouvernance vertueuse ñu ne réformer la cour des comptes gën ko jox doole réactiver la CREI muy xeex enrichissement illicite. xeex Karim Wade ñu ne. xaar Maguette rek xaar Maguette Maguette rek da nga comprendre ré euh, nu mu tuddati euh, créer OFNAC yokk ñi nga xam ne ñooy war a déclaration de patrimoine waaye bu ñu xoolee nag parce que le bilan pendant douze ans mm. le bilan est extrêmement maigre mm. en termes de d'identification et de condamnation de malgouvernance dans dans notre pays en termes de. kon nangu nga nangu nga loolu. mais bu ma ko nangu man maa ko waxal sama bopp <laughs> maa nattu damay xam dëgg te ñeme ko wax loolu nag bari nañu invité fii duñ ko agguñu foofu. Hmm. waaw man moom client bu am solo laa de. yàlla yàlla damay xamal dëgg. te may na ma fitu wax kon ci wàllu bonne gouvernance li ñu président Macky Sall waxoon yépp dara amu ca. ah am na ci lu am mais daf lajj. par la réactivation de la CREI bon la CREI maintenant changé nañ ko pour mu am double de. CREI moom ñu ne Karim Wade ko taxoon a jóg. parce que li sëb Alé Ndao ba Karim Wade kot xam nga yéen journaliste yi li tax parfois damay dama leen di daw sax léegi parce que da naqaree waxal. Fatou boo amee dégg rek da nga dégg. dégg naa la soo amee li dégg da nga am dégg li ma lay wax parce que li may wax moo ëpp solo yow ni nga ko bëgg li nga bëgg mais xam nga dama la ne le bilan maigre. je hmm. vais plus précis parce que moom dut baaram ngeen di comprendre. waaw kay mu leer nañ. ñaari bilan bilan la la lutte contre la mal malgouvernance ñaar lañ ñaat nit lañ jàpp. Karim Wade de manière emblématique. Aïda Ndiokh Khalifa Sall. non c'est pas ñooñu sax c'est pas très kii emblématique ak Karim Wade bon Khalifa procuration la doon def ñu condamné jàpp ko moo ko def mais Fatou est-ce que yow yanu na maanaam Sénégal ñu six cent une collectivité locale moo fi nekk six cent une laa la wax de collectivité locale que benn nit rek moo fi def tooxi doon loolu man mënu ma ko gëm mënul nekk Karim Wade bi ñu ko waree bi ñu koy topp dañ ko boole woon topp ak ñaar fukki nit juróom waa PDS mhm. moom rek lañ ci kon ne bàyyi ñu ci des ñu ci des naa am na ci ñoo xam ne dem ba nekk ministre ñoom ba nekk député ñoom ay directeur général kon encore fa mooy li man le bilan était maigre mm. loolu jàpp naa ne bokk na ci li ko yàqal ci euh, ci soow mi euh, soow Macky Sall mais nag sur le plan des réalisations il a fait beaucoup de choses maintenant bon peut-être ceux qui vont le euh, je crois que dinañu war a góorgóorlu parce qu'en réalité la la c'est-à-dire la corruption le détournement de deniers publics réew la malgouvernance day soxla xam nga 1960 Sénégal ak Corée du Sud ñoo tolloo woon développement tey jii am na benn société de de de téléphonie bu fa nekk moo ëpp doole Sénégal moo ko ëpp moyen <laughs> Tunisie gii mais Tunisie mook Sénégal tolloo woon développement en 1960 tey boo fa demee xam ne raw ñu nu mais li ñu nu rawee mooy nu waa Sénégal dañoo yàpp ne war a sax toog muy dox wala ñu toog ne nit ki war nay jël te du te jëf ah. wala man nay tedd te du ñàkk. ba faloo seetam kii remplacer président ki candidat bi ab bi baaxal waa réew bi am njariñ ci Sénégal mooy koo xam ne dinañ bu ngeen ma faloo dinaa leen ñaqaloo. gisoo lool ci Amadou Ba. ana waxagu ko Amadou Ba moom laa jëkk xam am nga ci moom yaakaar. ah gaa yi bokk ci yéen nee nañ dalalool xel yi de wanee ko fit lenn loo xam ne convaincre nag ñi ma dégg ñoo dama seenum xel waaye moom li ñoom li ñuy sa xel dal na ci Amadou Ba non xam nga dama dégg naa benn waaye boo xam ne da ñaara ko waxagul day Bibi Balde ak Souleymane Jules Diop. <laughs> Bibi Balde moom lu mu bëgg. ak ñi ñemewu la wax ci kaw. xaaral maa ngi mag sax bëggoon na euh, bi Balde. bien la bëggoon. Ah, bien sûr kon frustré moo tax mu wax. c'est un problème personnel. waaw ah. c'est un problème personnel bon Souleymane bi mu fi ñëw Ousmane Abdoulaye euh, mag euh, ki Amadou Ba moo ko fi woowoon. moo ko jox paas mu ñëw moo ko wutal fu mu nekk wutal ko permission. boo xëy na jéem na ko jut jutu ko mais je crois que c'était pas la peine de de faire comme ça maintenant. kon ñoom ñëpp ay compte personnel la ñuy réglé compte personnel. d'accord. c'est des comptes personnels parce que bu fekkoon ne du compte personnel même bu ñu amee ay repro ay pro luñ koy luñ koy conseillé ci. parce que bu fekkee bu fekkee bëgg nañ mu gagné jàpp naa ne am nañ droit gëstu ba xam stratégie bi mu jaar baax na wala baaxut après ñu defal koy observation. am na des sénégalais yoo xam ne mos bokkuñu ak Amadou Ba dara duñu duñu sax ay politique mais di ko yónnee ay notes. pour xool ba xam naka la war a mën a songe affaire parce que dañ ko yéene ndam. man man man moom laa jëkk xam ci Macky Sall. bon maintenant euh, man xam naa Macky Sall te nekkul président de la xam naa Abdoulaye Wade te nekkul président xam naa Macky Amadou Ba te nekkul président de que quand am na il a le de la mm-hmm. li des nag mooy bon. est ce que yaakaaroon ne li nga tudd waaw. li mm-hmm. mag ami Amadou Ba mën naa rassuré à titre personnel. mais je crois que assurance bi gën du boobu. tey boo xoolee Abdoulaye Wade 2000. position bi doole ji Amadou Ba yor Abdoulaye Wade yoru ko woon 2000 parce que Amadou Ba il est il est porté par une grande coalition qui n'a pas encore perdu d'élection au Sénégal. qui encore au pouvoir. oui deuxième chose mais 2000 Macky Sall 2012 Amadou Ba moo ko position parce que coalition Benno Bokk Yaakaar Macky Sall amu ko woon au premier tour tey am na ko mais mieux am na un président de la bu porté candidature loolu ab Wade amu ko Macky Sall amu ko woon maintenant nag am Sénégal ñi kenn bokk ci nguur ba ngay falu muy Abdoulaye Wade muy Aliou Macky Sall c'est pas c'est pas lu baax la may doyut donc en plus de li mu am l'appareil politique benno ba mu yor quand même war naa war naa mën a wax sénégalais yi li muy def man nag jàpp naa ne Amadou Ba li mu war a wax sénégalais yi bëriwut hmm. oui xam nga damay dégg ñuy waxu continuité non non a Ba il doit s'engager à parachever la deuxième alternance hmm. xam nga lan mooy parachever li ñu Macky Sall def lu baax mu dëgëral ko li mu fi def ci lu baax mu jubbanti ko moom ci boppam mu yokk yokk yokk yëf yi. yokk ba nag la war a campagne yokk ba nag na ci dëgër dëgër surtout les réformes de la gouvernance et les réformes. surtout les réforme pour réduire le wàññi doole yi président la république yokk doole yi assemblée nationale yokk jumtukaayu justice. surtout. désordre bi indiscipline bi ci réew mi ñu mu dindi ko kenn dootu fi gis woto ba am juróom-ñett fukki at di dew ci tëli. kenn dutu fi surcharge kenn dutu fi lang ci woto kenn dutu fi toog ci trottoir du jaay ab sareet dawal fu mu warta daw les marchés am anarchique laa ñu dindi ko ci dëkk bi mettre de l'ordre dans le pays parce que nag bu ñu bëggee Sénégal nekk réew mu développé il faut qu'il y ait de l'ordre et de la discipline c'est-à-dire mooy li ma la parachèvement de la réforme les infrastructures Macky Sall liggéey na ci lu bari mais doyut mm. parce que infrastructure boo ko tabaxalee ay ay dof dañ ko yàq mooy li xewoon <laughs> ay nit xëy di attaque di di yàq te BRT te pare bu sax ay wit ay vitre lañ doon toj di jéem a taal comment ça s'appelle euh, BRT euh, terre encore une fois donc li ab solo mooy d'abord ci nit ñi aussi ñu ci école bi ñu école bi ñu dugal ci la formation la construction de la citoyenneté l'éducation civique sénégalais yi xam seen bopp gëm seen bopp gëm seen réew mais loolu yoon wa ca gën a gaaw rek mooy yoon yi nga les lois yi ne ci réew mi ñu di ko appliquer te ñëpp yem kon Sénégal bañ fexe ba Sénégal du nekk fu ñu daan diw am ci am. kumba am ndey kumba amul ndey ak kumba amul ndey. looloo yàq réew mi Sénégal yëpp république bi ak état bi di seen ndey. loolu jàpp na ne euh, man personnellement foofu laa koy xaar. loolu moom lay xaar nañ ci des sax. Hmm. parce que bon ni ma ko xamee laa xamee ci des Aly Ngouille Ndiaye bokk naa ci ñi nga xam doon nañ ko labat. maanaam di ko di ko campagne pour mu ñëw jàppale Macky Sall hmm. moom bi ñu koy nommé premier mais xam naa ko baax sama rakk bu baax la la bu ma sañoon nag du tàggoog Macky Sall ci nit ñu tàggoo parce que après je crois que ça aurait pu être évité bon maintenant xëy na ils trouveront un moyen de se retrouver parce que ça aurait pu être évité pour man Macky li mu li mu waroon li mu waroon a proposé benn mooy un schéma et je crois que schéma boobu ci wax lépp. Hmm. premier prix moom ngay wax mais candidat bu faloo daa am ñoo xam ne ñoom lay àndal liggéey. Hmm. je crois lu mel noonu ay alingu xajoon na ci. Boun Abdallah Dionne xajoon na ci même le jeune Mame Boye xajoon na ci docteur docteur Serigne Gueye Diop xajoon na ci parce que nag euh, li Cheikh Anta Diop di wax moom lay fàttali toujours waa benn hmm. Cheikh Anta Diop daf ne bokk ci lu rëy moo gën yor lu tuut ndax dégg nga wax la bokk ci lu rëy moo gën yor lu tuut c'est-à-dire yor sa sa morceau Benno hmm. loolu loolu gën bii la mooy sëñ dafa am lu mu mas a wax hmm. te ma jàpp ne politique yëpp parti politique yëpp dañ ko war a téye di ko gànnaayoo daf ne surtout waa Benno Bokk Yaakaar sëñ Fallou nee na nguur li ko jig mooy juboo mhm. loolu nag boo xoolee l'histoire du Sénégal 2000 ñàkk juboo moo moo tax parti ñàkk. juboo moo tax la famille libérale ñàkk. mbaa du looloo yot Benno. Ah, ba ñu jubawul looloo leen du leen yot leen di dal. donc ñoom ils ont intérêt quand <laughs> mu nekk ànd. ànd pour parachever la mm. li nga xam ne Macky Sall jot na ko fee def ci lu baax ñu gën koo dëgëral. li nga xam ne am na ci rëq-rëq ñu jubbanti ko. Mhm. te nag yokk ci les réformes des institutions la la réforme de la gouvernance pays. Mhm. gën a xeex la corruption et le détournement des deniers publics. jërëjëf foofu la ñuy jaxalee tour d'actu tey bi amoon nañu mbégte lool dalal la ci plateau euh, télé Sénégal TV euh, commenté ak yow actualité semaine bi Moustapha Diakhaté nga nekkoon député ci assemblée nationale jërëjëf. ba maa ngi lay maa war a gërëm parce que damay wax ne man ginnaaw waxal askan wi ak wax ak askan wi moom laa def sama métier. Mhm. ku ma jox micro mën ngay dimbali kon encore une fois maa ngi lay gërëm di gërëm ñi nga bokk liggéey bi yëpp Séné Télé Sénégal benn euh, Télé Sénégal TV TV ensuite ñi nga xam ne ñi ngi nuyu seetaan bu leen fi wax nekk da dëgg tam njëriñ nan ko sant yàlla bu fekkee am na ci maa di jégalu hmm. ne lu baax rek laaj jublu woon merci beaucoup jërëjëf jërëjëf kon seen émission tour d'actu la woon euh, ci Télé Sénégal TV ni ngeen koy amee tous les samedis kon ñu joxante dig daje beneen samedi incha allah di leen ñaanal yendoog jàmm mbokk